par exemple yéen parfois da ngeen ñu indil stratégie jàmbur yi ci politique bu Ousmane Sonko ñu tëjee ko kaso muy un leader politique am parti politique moo tax ma ne la li xew ci DGE bi société civile bi rek laa ne ñoo lâché ñoo seetaan bu ñoo mënoo leen joxe bopp rocc ci lan taxaw ne baaxul ba pare te demoo leen accompagner demoo leen xeexal leen jaga si la au lieu de faire le tour des plateaux yaay expert ñaari côté yëpp demal nga dugg ci nga porté combat bi ngeen jóg ànd ak dossier yi dem xeexi ji ko Sénat aussi mënu leen bàyyi ba tey Sénat musul am njëriñ musul normal musuñu am utilité ngeen bàyyi ba tey ngeen bëgg ko crédibiliser ngeen bëgg yàq candeela te candeela kenn du ko fi yàqee c'est un haut fonctionnaire boo xam ne day xëy di liggéey di wàcc loolu dama ko teg nee de côté beneen affaire bi deuxième bi ñoom stratégie politique xëy na am nañ yeneen stratégie yu dul yi bu ñu yeggee foofu nañ ko fi def quant à de la faim bi fam lu ma waxoon ne bi ñu njëkkee def système grève de la faim suñu sëriñ sëriñ Moustapha dafa génn ne stratégie la woon mais amul benn communiqué bu génn démentir. yokkoon sax ci ni euh, leader yooyu ba ñu demee Ousmane Sonko da doon crise crise bañ a mais bu toll noonu voix autorisée bu toll noonu ba mu waxee loolu. génn ne moom moo ko defoon noonu parce que stratégie la mais après bu ñu ñëwaatee deuxième grève de la faim te communiqué bële génnul pour wax ñu ni nii noonu demeewul woon noonu bi ñu waxee loolu mais kon damay jàpp ni ni bi ñu yegg si bi ma njëkk dégg te bu wax di am Moustapha sëñ Moustapha laay dégg mais xëy na rapport bu fuité nag bi waaw rapport bi la bi tax ñu gëm ni santem tagatem waaw non xam nga rapport bu fuité xam nga la faim décision personnelle la nit a koy jëlal boppam ci stratégie mais bi mu njëkkee am allié politique di kilifa goo xam ne ni rag gisuma ku mu ragal fii ci Sénégal ak fitam wala muy wax leneen ak leneen bu mu taxawee yëkkati kàddu boobu gisuma kenn ku génn ne du loolu kon dañ jàpp ne ni stratégie la woon deuxième stratégie la woon. rapport bi foofu léegi rapport bi ñu ne fuité na nag. dans l' mooy li may kaas rek sur le clientélisme politique bi am ci administration bi parce que bi mu amee ba ñu jàppee Amadou Ba jàpp ci Fatimata Seynabou Kane ba ñu leen jàppee dañoo dem reconnaître ay faits. Mm-hmm. ñi doon hypocrite ñi ñi nga xam ne dañ doon def d' hypocrisie sociale. di wax mais ñoom tamit nee nañu ci foofu ci foofu tamit nee nañ procureur ba muy ba enquête euh, di toppee ñenn ñi war warub euh, diffamation de de de de données personnelles nee nañ fan la nekkoon euh, bi nga xamante ni ki mu mel ni yi di divulgué woon na ay photo Sonko ay autorisation de port d'arme ci jamono bi ñu ko jàppee ci Koungheul laaj la tamit bu ñu samp waaw dama ne Adji Sarr tamit bi ñuy génnee certificat médical am ñoom ñu koy génnee di ko brandir di ko tas si dëkk bi sénégalais dafa amoon ndey am problème ak nit mais bii saf na leen arrangé na leen ci seen xeex boobu tamit procureur fu mu waroon nekk tamit li nga wax ci Anita TV tamit dama cee end parce que Anita TV bu nekkoon foofu di génne ay divulgation woowuñu procureur woowuñu woowuñu keneen woowuñu ko mooy mooy yi am bari xam man dama dul bokk ci ñi nga xam ne ni dañuy taxaw fee bu gaz dama keroog dama wax ma ne leen bu gazeli ba mu génnee affaire phobie ñu bàcc ko ci liberté provisoire kilifa yanaamaar ma nga ca ñoom ñu koy jox micro di ko tàcc ñun lu ne fàng la ñu gis mais fii boo nekkee fee boo nekkee fee am immunité boo jógee fee am immunité lu bon lu bon la Adji Sarr bi mu nekkee sénégalais ñu respecté ko mu am présomption d'innocence dañ ko tooñ muy sénégalaise di doomu di di di di nit ku amuluy waajur di liggéey fu bon vulnérable mais dañ ko rejeté bi ñu ko rejeté tey ak certificat américain dañ ko doon foowee ci mbedd bi di ko tas tasare te dafa amoon ay droit parce que boobu kenn ñemewu koo défendre kenn ñemewul jóg taxaw léegi lii génn ci administration bi ñu ne fuité nañ ko état du Sénégal l' ci loxoom la nekk pénitencier ci seen loxo la nekk ñoom ci seen wàllu bopp na ci seen biir parce que dama toog fii ne rapport cour des comptes bi li taxoon ma critiqué ko mu ne la yi léegi am na ñuy politique ci biir douane bi am na ñuy politique am na ñuy cotiser politique ci biir gouvernement bi am na ñu fa nekk ci Macky Sall di cotiser ci opposition bi ci biir magistrature bi am na ñuy politique juge dem laa ci gis mu génn démissionné bala am na ñu fa des ci biir di politique ci biir greffier bi am na ñu infiltrer politique bi infiltrer santé bi le clientélisme politique ñu érigé ko en règle bu ñu bëggee xeexee contre ce fléau dañuy fexe ba indi ay loi les hauts fonctionnaires du ñu politique ati mais loolu fuité ba mu amee ci Amadou Ba ak Fatimata bu kan mais sénégalais dañoo génn ne laissé diw war nangam nangam te pourtant bi ñu demee ils ont war ñu def li ñu war a def devant les les tribunaux ba am ba am liberté ba am contrôle judiciaire léegi contrôle judiciaire boobu ñu am ba ñu génnee leen ci politique nga xam ne ni fee boobu nii la demee noonu laa koy ñaanee pour ku mel ni Aliou Sané parce que du danger du nit kuy menace du leneen xëy na mu ngi doon politique am na lu mu gëm am na lu mu bëgg am na fu mu far mais taxawul aussi tamit ñu teg ko noonu ci kaso bi. surtout surtout pourvoi boobu ñu ko jàppee. Mhm. gëwuma loolu nañ ko jox contrôle judiciaire beneen bi li nga wax ci Anita TV fi may daanele mooy li xew. parce que Anita boobu état mu ngi toog di ko. non ñoom ñoo ko wax ñoom ñoom. ñoom ñoom ñi farek Sonko ñoom ñoo teg interrogation yooyu lu waral kee ba mu divulgué. waaw mais léegi ñi faral Sonko ci biir mbir. ñi faral Sonko lu waral xalaat TV ay ancien criminel nekk ci ginnaaw di sosal nit ñi di fenal nit ay ancien crime la ñu ne ci ginnaaw. waaw ay lâche parce que kuy tronquer sa voix nekk dans l'anonymat ñeme woo wax ñi leen di consommer ñi leen di déglu moo tax ma ne Sénégal dafa am problème crise hypocrisie sociale koo xam ne dafay nëbbatu di làqatu di sosalaate di fenalaate moom nii victime laa ci def naa plateau benn jour ñu ne non kii dafa bokk si ñu ñu recruter ñoo war a def propagande troisième candidature Macky Sall mu ne dañ ma recruter dañ ma financer dañ ma jàpp troisième candidature Macky Sall anam fu mu ba mu ne fay nañ ñu encaissé nañu moom xalaat TV boobu moo ko wax pendant combien de temps xalaat TV mu ngi ci réew mi di fen di sosal ay nit di yàqal ay nit récemment dama gis xalaat TV bi ma ko defee mu def ko euh, ci affaire C50 bi. Hmm. bu bu Ablaye Sylla bi mu amee xalaat TV génn ne am na ko tudd diw dafa def dafa nekk candidat jël xaalisam Macky Sall lay liggéeyal waaye léegi xalaat TV. di fen di sos di yàq ñi ko parce que xam ñoom habitude ñi ko moom ñi nekk ci ginnaaw xam nga nañu rey nit def fi sos def lu ne capable nañu lu ne mais bu ñu demee nag ba benn instant ay politiciens de l'opposition di utiliser Xalaat TV comme arme waa léegi un homme politique un honnête citoyen comme Ablaye Sylla bi defar rawdu Sëñ Fallu plus de deux milliards jël ay otoom Tiwaawoon bu soxlaa gàmm mu indi ko à leur disposition C50 ñu créé ko club de préférence amuñu droit de waaye yow it publicité bi ngay defal. xalaat TV ci sama plateau. amuñu droit non xamuñu tax moo wax loolu. mooy c'est parce que xalaat TV di ko tronqué di ci wax lu nekk ngeen ñuy titré lu nekk waaw bu fekkee xalaat TV dafa wax loolu daal di sosal Ablaye Sylla ñu am C50 C50 di entreprise ay club entreprise Serigne Modou Bousso Dieng sëñ Modou Bousso Dieng man xaw ma Ablaye Sylla sëñ Modou Bousso Dieng laa xam. sa Modou Boussa bu ñuy xeex. C50 mooy lan moom. waaw C50 mooy club de préférence nationale toog nañ fi benn jour ñuy wax ci émission ma ne la. club de préférence nationale Birahim Touré journaliste Sevroné gis naa mu wax ci ne lu mel ni C50 club C bu de préférence nationale bu ñu xeexoon tey ba lépp ñu koy am fii ci Sénégal loolu dina am njëriñ. d'accord waaw C50 boobu amul droit dem def publicité génnee ay spot publicité jël ay influenceurs parce que influenceurs yooyu parti yëpp a ko am jox ci ay nit ñu defal leen influence waa léegi ñu génn ne Ablaye Sylla yàq ko. naan dafa créer entreprise de valeur xalaat TV léegi nag dama gis la léegi yow coow loolu yow lu xam nga lu ma ci dugal waaw parce xalaat TV dama ci nekk victime léegi ñu ne arnaque du siècle c'est cinquante ñiy dem nii jël nii ñëpp léegi xalaat yeneen chroniqueurs yi yeneen yeneen yeneen influenceurs yi taxaw nekk extérieur di saaga far feneen di wax ak seen i candidat ak seen leader lu tax ñooñu bokkuñu ci ci ci arnaque bi mais c'est cinquante bii c'est le club des entreprises par exemple C50 sëñ euh, Modou Bousso Dieng moo koy wër ci sa àdduna bi ci Sénégal sëñ Modou Bousso Dieng lu mu def da koy partagé ak man. d'accord di ma envoyé may xool bi ma demee fi ñu wër ci Sénégal yépp waxu entreprise la ñu wax mais ku mel ni Ablaye Sylla bul duggee ci élection xam nga lu tax dafa am homme politique yu nekk fi Sénégal yàgg fi. daaneel la foofu dem ba nekk politicien de métier waaw léegi bu gan ñëwee ci politique nga am profil bu baax nga nekk chef d'entreprise nga nekk homme d'affaires wala nga mel ni coon ñaa ñëw di di commencer xëcc di commence que ci dañuy dem yóbbu la ci seen i seen xalaat TV yóbbu la ci seen i pour ñu yàq la. d'accord léegi nag loolu laa wax ne ni il faut que mu dakk. d'accord léegi nag ci dakkin gi. message bi jàll na mel noonu dama cee gis kenn koo xam ne dafa nekk victime muy ma koy sensibiliser di ko encourager muy Anta Babacar Ngom Anta Babacar Ngom ndax déli la sa baay am alal ci réew mi ndax déli la nga tekki ci réew mi ndax déli la. nga liggéey jàng dem extérieur créer industrie am dono goo xam ni ndax deli la nga lancé wu ni damay jàppale sénégalais soxor googu sénégalais yi am def nañ ko doomu Mansour Faye mais Sénégal pourquoi yow nga ne amoo keneen doo am. mais loolu nag mënoo ci dara abu. pourquoi nga ne yoroo keneen yow koy. sànq xam nga moom moo lancé wu ci politique. donc moom it na pare bu lancé ci politique bu lancé ci politique dañ ko parce que dama gis mu ciy justifier dama koy conseiller ko Anta sa papa def na ci réew mi loo xam ni bàyyi ñu bari defuñu ko créé ay entreprise jël ay baayu jàmbur jël ay maamu jàmbur defar ay dëkk anta bu nga jàng fi ñu war a jànge am na ñu fi nekk ay ancien miss di taxawaalu ba xëy dugg ci politique bi am na si ñoo xam ne amuñu métier ñu ngi ci politique bi amal fit la tête haute. comme kan kan nga bëgg dama wax ni ay ñoom Maimouna Bousso ñu nekk fi ñu leen di publicité lan la ñuy liggéey ak la ñuy def parce que non dama ne la benn amoo mus naa la seetaan mus naa la seetaan ci benn plateau aussi mais dara je que ci plateau Aïssatou Diop Fall la non xam nga ci avant Aïssatou Diop Fall ak keneen xam nga may mën a busu mu ngi ci politiciens yi di taxawaalu amul métier këram la ñu toj mu fat mer bu taxawee ñu mën ko def ne ko dañ koy jàngal ancien ministre bu mën a ñëw ñu recycler ko ci politique Anta Babacar profilam Ami Sarr Fall profilam dañ ko war a jàngale Anta Babacar profilam dañ ko war a jàngale benn dem naa ci lancement am bi ñu invité mais Anta dama bokk ci ñi nga xam damay encouragé loolu. parce que kon profilu Maimouna Bousso aussi. mën mais profil su ko jàngale. non profilu Maimouna Bousso lan lañ ciy jàngale. mooy c'est-à-dire toj nañu sama kër dans l'illégal ma faj ma ma ma ma ngeen mer ngeen. mën nañ ci jàngale une femme engagée. waaw une femme engagée boo xam ne ni mosoo dem élection da ngay langaamu ci ñii di profité ci Ousmane Sonko bi nga xam ne jigéenam ñëpp waaf nañ gisatuñu ñoom Khadija nga profité ci loolu pour ut ci notoriété ak légitimité ba naroon ci doon député loolu du politique li Anta def mooy lancer mouvement citoyen na li Anissar Fall def ci les rentrées citoyennes. d'accord li Ndella Madior Diouf def jël ay xale dajale leen pouponnière dugal fa ay xale di leen dimbali di leen toppatoo lii journaliste bu mag boobu def Oumy Ndour ci affaire Senelec bi yooyu mooy exemple mais Anta dama bëgg mu yëkkati laa teg haute mu jóg dox daagu. d'accord si di xool sénégalais waxtu bi jeex na ba pare faire face à ces détracteurs wax leen ni réew mi sama baay dafi employé ay baayu jàmbur dafi liggéeyloo ay maami jàmbur sama baay du yaafus nekkul ci politiciens yi du métier politique la doon def man it du métier politique laa doon def jarul mu leen di wax fi mu jaar ak la mu sonn. d'accord bëggoon naa ñu ñu wax ci yeneen point yu bëri waaye waxtu bi jeex na tàkk xam naa dañ ko fiy mujjee yemale rek desoon ci conducteur bi sax euh, mujj ñu ko teg sur la table. Euh, mu ñeeral aussi euh, Ahmed Aïdara bi nga xamante ni tout le temps dañ koy accuser d'être une taupe. Ah, moo war a xoolal boppam bëggoon naa am sa gis-gis bëggoon naa am aussi sa gis-gis ci Boubacar mu wax. Eh, suñu reporté li nga xamante ni moo di élection yi bëggoon naa aussi sa gis-gis si Amadou Ba ak tournée économique yi mais xanaa bu ci nekk rek nga fexe rek ramassé ko. non xam nga. parce que euh, jeex na tàkk par rapport ak tournée économique Amadou Ba bi man pour man Amadou Ba euh, tournée économique waru ko woon def parce que bi ñu ko nommé ministre dafa am ay urgence sociale parce que continuité wu président Macky Sall boo xam ne mënul nekk candidat li nekk ci terrain bi président Macky Sall nee nañu liggéey nañu am nañu bilan physique. problème bi Sénégalais yi am social Amadou dafa yegg ci tombeek Sénélec nekk ci crise tey problème mu bi c'est pas parce que da ngay jël Pape bi Bitèye démb Amadou lii génn na bu kii keroog Birima Ndiaye génn na ñu bëgg a attaquer directeur de la Sénélec pour jéem koo xeex xam nga luy wax mooy Amadou Kay lan moo doon mission tey bi mu yegsee mooy mu dajale le secteurs de l' économie de pêche euh, économie maritime bi ñoom Pape Sagna dajale ministère de la. yaa ngi ne campagne déguisée lañ def yeneen candidat fu ñu romb ñu bloqué leen. moom ñu romb wel xam nga ñaar moom am. mooy c' xam nga comme par exemple ñu ne fu ñu candidat c' un premier ministre politique sénégalais bu ñu ko bëggee di changer ñoom ñooy changer politicien yi